الحمد لله العلي العظيم أنزل إلينا القرآن الكريم روحا تحيا به نفوس المؤمنين ونورا تستضيء به قلوب المعارفين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من صحب القرآن ورتله وعمل به وعلمه فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من صار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وقراءة كتابه فهو أنيس العابدين ورفيق القانتين من قرأه ارتقى ومن عمل به كان من أهل التقى قال جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين mbokk ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu boroom mu kawe mi yàlla suñu boroom mu màgg mi moom mi nga xamante ni moo ñu wàccee lii di alquranul karim muy liy dundal suñu ruux yi ne suñu jëmm yi waaye tamit di leer boo xamante ni moo ñuy leeral fi ñu war a jaar ngir jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu ko ñu seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg kudul moom allahu subhanahu wa taala bokkaale ñeelu ko di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la mooy ki gën ci képp koo xamante ni ku taqoog alquran nga muy ki gënit ci képp koo xamante ni yaa ngi jàng alquranul karim di ki gën moom alayhi salaatu wasalaam ci képp koo xamante ni yaa ngi jëfe alquranul karim di ki gën ci képp koo xamante ni yaa ngi jàngale alquranul karim yàlla nañu ko yàlla fayal moom ak i saxaabam ak njabootam ak képp koo xamante ni yaa ngi jaar ci njubu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila yawmi diin ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla ak jàng alquranul karim alquran bi nga xamante ni mooy liy dëfal jaam bi mooy it jumtukaay bi nga xamante ni képp ko ni rabbuna allah yàlla mooy sama boroom nee na amoo lenn loo xaramte moo war a nekk sa outil sa li ngay jëfandikoo ci boobu yoon lu dul alquranul karim alquran képp koo xamante ni it yaa ngi koy jàng yaa ngi yëkkatiku ci ay daraja yu kawe képp koo xamee nit yaa ngi koy jëfe soo ko de yaa ngi bokk ci ñi nga xamante ni ñooy ahlu tuqaa mooy ñi nga xamante ni ñi ragal yàlla yàlla ñu ci yàlla boole alquran nekk téere boo xamante ni ñu ngi ko wàccee ci lugatul arabiya ci langue arabe quranan arabiyan gayra di ibaj moo tax arab yi jàppoon ni li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ay way la yàlla ni wa ma huwa bi shaacir di waxu waykat de wala bi qawli kaahin di waxu njabarkat tamit alquran ji tanzilu min rabbil alamin ci seen borom la wàccee bi yàlla di melal alquranul karim di wone dayoom ci seen biir dafa tàmbalee ay kàddoom ci baat boo xamante ni amul ci langu arab mu ni alif laam miim kooku mu fassiruuna dañuy wax allahu aalamu bi muraadihi yàlla moo xam lim na mu ci baat boobu waaye ci arab yi bi ñu dégg alif laam miim ñoom ñëpp dañu def li ñuy wax ak tanbiih ñoom ñëpp dañ ni jàkk di xaar lan mooy topp ci wax ji ndax du waxu arab yàlla di leen informé nag lii di alquran mu ni daalika alkitaab téere bii di alquran laa rayba fii amul sikki sàkk ni hudan lil muttaqin njub la ci képp koo xamante ni yaa ngi ko topp alquranul karim yàlla mu ngi ko wàccee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi waasitati jibril ci jibril la jaar di wàcc ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla di wax ni wa kadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliman walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina mu ni alquranul karim bi yàlla mu ngi ko jox jibril mu wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon nag wax ju diis moom alquranul karim inna sa nulqi alayka qawlan thaqila mu nekkoon wax ju diis ju daan wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax du waxu nit waaye mu nekk ak njub goo xamante ni yàlla moo koy def ci jaamam ñi mooy xool ci jaamam ñoo xamante ni day def ci alquran seen dënn mu nekk ab njub ci ñoom ba ñu bokk ñi nga xamante ni ñooy ahlu tuqa alquran mooy xablullahi almatin mooy buumu yàlla bu dëgër bi nga xamante ni moo lay jokkaleeg sa boroom ngay diisoo ak moom alquran mooy siratuhu almustaqim mooy li lay niital yoon bi nga xamante ni fa nga war a jaar ngir dugg bir aljanna mooy sirat al mustaqim alquranul karim mooy ahsanul hadis mooy wax ji nga xamante ni benn wax féetewu ko kaw wa ablaguhu moom mooy wax ji nga xamante ni benn wax gënu koo jot wax joo xamante ni lu la waay indil ci ay xalaatam moom ba wax ba daj nee na boo ko waxalee alquranul karim du ci tegaat benn baat na wax alquranul karim waxu yàlla la mooy wax ju mat ja wa afsahuhu wa abyanahu mooy wax ji set te leer wa ajalluhum wa azamuhu mooy wax ji nga xamante ni mooy wax ju màgg ju tedd di wax ju benn wax féetewul kaw wax joo xamante ni yàlla mu ngi ko wàccee ci jibril mu wàccee ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci dënnam bi nga xamante ni moo alayhi salaatu wasalaam moom mooy xaatama nabiyin mooy ki nga xamante ni gënnaaw moom beneen yonant du wàccaat sallallahu alayhi wa sallam alquran mooy téere bi nga xamante ni yàlla mu ne buñ koy jàng ñi nga xamante ni ñooy jullit ni buñ leen di jàngal alquran wala ñu koy jàng lan la alquran di def ci ñoom yàlla mu ne innama almuminuuna alladina ida dukira allah wajilat qulubuhum bu ñuy jàng alquran seen xol ya day nooy fuddu di dund wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana zaadathum imana alquran mooy téere bi nga xamante ne boo koy jàngal nit ki muy xam maanaaya nee na dafay yokk lii di gëmam lii di pas-pasam yàlla ñu yàlla déggloo alquran ci weer wi ñu nekk ne di weeru koor la yàlla wàcce woon alquranul karim mu ni chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan alquran ci weer wii lañ ko wàccee woon moo tax mu ñu naan weeru koor bu barkeel bi barkeel gi alquranul karim gi la gi ñu wàccee ci biiram muy téere bi nga xamante ni hudan linnaas ak njub la ngee ñiil ñeel képp koo xamante ni yaa ngi bëgg a tegu ci yoonu njub wa bayyinaat téere la boo xamante ni lépp lay leeral ci li nga war a def li doomu aadama bi yàlla dénk kaw suuf lépp lu muy soxla ngir alfasaad bañ a nekk ci kaw suuf yàlla leeral na ko ci biir alquranul karim bi mu di njub ba pare di wal furqaan di lay teqale ci lépp loo xamante ni dëgg la ak neen jibril alayhi salaam daana ñëwal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor guddi gu nekk yaltaqi jibril alayhi salaam fi kulli laylatin min ramadan fa yudaarisuhu alquran muy jàngoon ndoog moom alquranul karim kon li nga xamante ne mooy li war ci ñun ñii nga xamante ne ñooy ñi wax ni gëm nañ yonante bi sallallahu alayhi wasallam gëm nañ alquran ñu sàkkal ay waxtu ci weer wi ñu nekk di ci jàng alquranul karim di ko tadabbur jàng gi rek nekkul ci li nga xamante ne moom lañ la wax nga koy def waaye nga fexe koo dégg alquran mooy fi yàlla waxee ñun nañ ko war a jaamoo ngir ëllëg ñu am ak fayam am na benn borom xam-xam bu ñuy wax ibnu shihabin az-zuhari mu ne ida daxala ramadan qaala innama huwa li qiraati alquran am nee na alquran moom su musa su weeru su weeru koor duggee rek nee na weer bi nekkul lu dul weeru jàngu alquran kon kenn ku nekk war nga sàkk waxtu woo xamante ni di nga ci jàng alquran moo xam da ngay wàccee kaamil bi wala nga fexe ba nga xamante ni di nga ci jàng ay safahaat ni nga koy jàngee ci bëccëg bi noonu it nga ko war a taxawalee ci guddi yi ci ay nawaafil ci salaatu tarawih yi nga xamante ni mu ngi am ci jàkka yi jamono ji ngir dundal li nga xamante ni mooy alquranul karim ak màggaayam yonente bi salaa sallam wax na ni man qara xarfan min kitaabillahi fa lahu bihi xasana képp koo xamante ne jàng nga alquran benn xaraf neen am nga ci yiw te yiw nag di ko yàlla di di di considéré mu ni alxasanatu bi ashri amthaliha benn yiw boo def rek jàppal ne fukki tuyaaba la te bu dee weeru koor yàlla li muy fay ci weeru koor du ko fay ci beneen weer alquranul karim mooy li nga xamante ni ëllëg yowmal qiyaam moom ak koor gii dañuy ram yonente bi salaa sallam wax ni alsiyaam wal quran yashfaani lil abdi yowmal qiyaam ëllëg yowmal qiyaam dina am jaam ñoo xam dañuy nekk ci njàqare di xool ndaxam ñoom seen yiw dina doy sax ngir ñu dugg fi nga xam ne mooy aljanna waaye neen alquran gën daan jàng mooy taxaw keroog ramu leen ak koor gi nga xamante ni doon nañ ci not seen bakkan ci lépp loo xamante ne luy dog koor la lépp loo xamante ne luy bànneex la ba li yàlla digle nga xamante ne dafa dagonoon ci yow muy al aklu wa shurbu wal jimaa yépp nga bàyyi ko te yàlla tax nee na yowmal xiyaamati boo ñëwee ñoom ñaar dañuy taxaw di la ramu di wax ni yàlla tinu nañ la si suñu sa jaam bi ndax na wax moom manaatuhu nawm bi layl ñun ñoo ko tere woon guddi gi muy nelaw ngir di la jàng waaye guddi bëccëg yi ñu bàyyi woon ci lekk ak naan ak lépp loo xamante ne seen bànneexu bakkan la woon ngir ñu am li nga xam ne mooy sa yool yow yàlla kon ñu ngi lay timu bu ko defee alquraanul karim ak koor gi daal ñuy timu aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي جعل الحمد مفتتحا لكتابه وأنزله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بقي بنا بني سنت يالله سني بروم سبحانه وتعالى ممي تنبلي القرآن الكريم تي باتو سنت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب yàlla mi nga xamante ni moo ñu wàccee lii nga xamante ni moo di alquranul karim yàlla jagleel nag alquranul karim ki nga xamante ni moo ko daan sàmm di ko jàng di ci góorgóorlu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kii góorgóorlu di jàng alquran góorgóorlu laa di góorgóorlu daj ci ay coono ci ijji ma ba ngay ijji xaraf bi rek bala nga koy tudd mu doon lu jafe ci yow nee na ba nga tudd xaraf bi nga génn ci xaraf yi di boole di boole dem ba tàmbalee jël téere di jàng nee na coono googu nee na falahu ajraan yow am nga ñaari yool yoolu coono gi ngay daj ak yoolu tudd bi ngay tudd alquran gi bu bokkul ak yoolu nga xam maanaa bi bu bokkul ak nga dem ba xam jëmmi alquran gi yàlla def ko sa dënn ndax yàlla moo ne summa awrasna alkitaba allazina astafayna min ibadina yàlla nee na alquranul karim gi du ci dënn yépp laa koy def képp koo xamante ni sa doom yàlla wërsëgal na ko mu dem ba mokkal alquranul karim jàppal ni yàlla moo ko tànn ci biir jaam ñi yàlla nee na maa koy donn la ci sama jaam ñi moo leen tànn donn leen alquran bi ñu donne ko ci yonent yi alayhi salaam bu yàlla defee nag ba mu dem ba koy jàngale yàlla mu ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki nga xamante ni moo jàng alquran ba pare toog fas yéene koo jàngalewaat di ko defaat yéeneen di dënn alquranul karim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ni qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam inna alqur'ana yalqa saaxibuhu yawma alqiyam xiina yanshaq inda qabrihi kar rajul nee na lii di alqur'an yàlla da koy def jëmm keroog yawma alqiyam mu ñëw taxaw bi ñu xottee sa bàmmeel lan looy wax daf na la ndax xam nga ma ma ne ko déedéet xaw ma la de mun la man may sa àndooloo bi nga xamante ni ca àdduna yaa ma daan jàng di ma settantal di ma tadabbur fa yaqulu ana saaxibu alquran allazi azmatuka fi lhawaaj bëccëg ya lam daan métti yëpp yaa nga nekkoon di ma jàng wa azharta laylak guddi ya nga daan yeewu sax di ma jullee wala ngay toog di ma jàng fa inna kulla taajirin min warai tijaratihi te képp koo xamante ni yaa ngi jaay rek yaa ngi bëgg ëllëg ñu jënd sa njaay mu ne tey la bisu fay gi nag nee na mu jox la ñaar yi al mulk wal xuld mu ne la ñaar a ngi nii nguur a ngi nii maanaam tey jii lañ lay teralee te ni comme ni ñuy teralee buur buur comme ni ñuy teralee buur ci fan fi nga xamante ni xaalidiina fiiha abadan fa ngay sax ba faw muy aljanna yàlla na ci yàlla dugal mu ni du yam nag ci yow moom waaye sa waay jur mu ni say way jur di la daan topp di la di la soññ ci nga jàngi ji ne ne yàlla da leen di wodde ay ko kiiraay yo ay ay ay làmbaay yoo xamante ni nee na waa adduna bi yëpp buñ dajaloo woon pour jënd loolu noonu bu ñu am njëgam kon loolu cher na nee na yàlla suñu boroom jël lii di mbaxanay couronne mbaxanay buur tegal ko say wayjur ba pare na la jàngal looy gën di jàng nee na di yéeg ci tabaqaat yi nga xamante ni moom mooy tabaqaatul aljanna yi looy gën di jàng loo mokkaloon rek fa nga yem ca fa nga mokkal foofu nga yem ca aljanna yi ana ki mokkaloon alquranul karim kooku fan la ko yàlla teg maa annabii muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ci yàlla defal mbokk yi alquranu karim ngoog ci weer wu tedd wii tombeeg suñu réew nekk ci jamonoy élection élection mbokk yi dañuy tànn rek koo xamante ni nañ ne mooy jiite mooy jiite réew mi li ñuy defe ji dimanche formalité rek la yàlla mu ni qul illahuma malikal mulk tu'til mulka man tasha yàlla noppi na ci ka muy tànn ba pare yow toog tànn na ko ba pare ana ñun ñii nag ñi nga xamante ni ñoo war a def formalité yi nee na bu ci wax lu ñaaw bu ko ci def bu ko ci sabab jëlal sa carte rek nga dem tànn ji nga dem sànn ji nga ne yàlla yow de yaay kii mën a tànn tànnal ñu ki gën ci ñun te ki ñuy tànn it xam ne am na masuuliya bu koy xaar ndax yoon saa sam nee na kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi kenn ku ci nekk ci yéen ab sàmm nga sàmm nga sa njaboot chef de quartier bi sàmm la ci quartier bi mu dirigé président de la république nga ni nañ ma tànn ngir mu yor yoral leen seeni soxla subhanallah ëllëg kenn ku nekk la nga ko digoon yàlla dina laaj ndax matal nga ko kon masuuliya la est ce que loolu nit ki dina ko xam poids boobu di yëkkati ay nit di leen jox xaalis ni sànnil ma déedéet kon nañ ci ànd ak dal ànd ceeg tey dem sànni ji suñu carte bàyyi yàlla mu tànnal ñu yàlla ñu yàlla tànnal ki gën ci suñu Sénégal ki gën ci suñu diine ki gën ci suñu dundin ki gën ci ngir ëllëg ñuy texe ji nekk ci ahlul quran ahlullahi wa xaasatuhum yàlla ñu yàlla tànnal ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وصائر الصحابة الأكرمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله